sàmmonte ak calendrier bi nag tey itam nag ma ngay tàllal loxo ñii di frustré yi yemu ca nag ma ngay xam ne ni jamono ji ma ngay waxtaan ak yeneen i candidat lu jëm nag ci kàddu yi nga xam ne jëwriñ ji di Mame Mbaye Niang ma ngi ko yëkkati boobaak léegi di xam le ni àndul ak moom déclaration politique la ko jàppee moom Amadou Ba di xam le ni Mame Mbaye Niang war naa bokk ci responsable yi nga xam ne rek war naa tase ak ñoom nekkoon nga nag France 24 ak RFI Amadou Ba séq yaatoo yaatu dellu suwaat nag ci lu jëm ci coowal Karim Meïssa Wade moom nag ma ngay setal daganal aw deram nag di xam ne ni recours bi nag du moom moo ko def te itam nag loxoom laalewut ci yëf yi jëm ci tuuma yi nga xam ne rek waa PDS ñu ngi koy yëkkati jëmale ko ci ndoddam Moustapha Diakhaté moom ma ngay àddu jëmale ci commission d'enquête parlementaire ci biir yéenekaay bi ma ngay xam ne nag ne assemblée ab coup bu doy waar lañ nar a indi fii ci réewu Sénégal Thierno Alassane Sall ci jamono joojee nag di ñaawlu président Macky ak Ba naka noonu waa parti démocratique sénégalais ni te lépp rek ay politique képp daal di koy lal 24 heures dellu soir ci ndimbal ak lëkkaloo gi nga xam ne rek dox na ci diggante APR ak waa PDS ñeel commission d' enquête parlementaire Thierno Alassane Sall ma ngi koy ñaawlu nag jàpp na ab république des dealers moom la ñu am fii ci réewu Sénégal moom candidat bi nag ne ci jamono joo xam ne dañoo war a ñaawlu taxawaayu Karim Wade nag jëm ci kàcc yu mu kàcc réewum Sénégal waaye dañoo gis ay politiciens di génne fu nekk nag di ko jéem a lu ni mel nag gàcce gën a koo rëy bés enquête bi nga xam ne rek moo soxal Karim Wade yéenekaay bi ne ay kàddu moom ma ngay bàyyeekoo fu nekk Guy Marius Sagna nag ma ngay fàttali nag juróom-ñetti proposition yi nga xam ne rek moo soxal commission d'enquête bi Thierno Alassane Sall moom di tuumaal Macky Sall Amadou Ba ak Karim Wade ni ay dealer lañu dañoo bëgg a récupérer électorat bu PDS Anta Babacar Ngom nag ma ngay àddu jëmale ci boobee commission d'enquête parlementaire di woowaa ku jëgi nag ngir ñu di defub dànk le public nag dellu siwaat ci lëkkaloo gi dox ci diggante Macky Sall ak Karim Wade bi samp ne Amadou Ba nag ndax du ca jaaree daal di démissionné yéenekaay bi yokku ci ne nag lii ab jeu d'ombre la ñu ko mën a dippe wala ab dil boo xam ne rek dañu koo tekk ngir mën a am li ñu bëgg ci seenub xeex lu mu ci mënti doon daal PM moom ma ngay internationaliser nag lii di combat bi Walf Quotidien dellu siwaat ci beneenub candidat mu di Mame Boye Diao muy xam ne nag ni dañoo war a wàññi pouvoir yi nga xam ne rek moom la président de la république amee yër leen bi la yëglekaay addu jëmale ak l'observateur moom nag dellu siwaat na ci présidentielle yu atum 2024 ak rëq-rëq yi nga xam ne rek tàmbali nañ ko cee nemmeeku xaat yéene kaay bi ne Mimi jamono ji nag fekk ji na Ousmane Sonko Idrissa Seck Abdoul Mbaye Déthié Fall Bougane Gueye Dany ku ci nekk nag ma ngay wone boppam amadu Ba ci wet gi nag di xam ne ni dinañ ko élire ci première tour bi fekk jamono joojee nag ab commission d'enquête parlementaire ñu daal di koy taxawal nag jëmale ko ci kaw conseil constitutionnel ci lëkkaloo gu dox ci diggante PDS ak APR yéenekaay bi di peeko li ñoo la farce wax ci beneenub yéenekaay mu di Sud Quotidien addu coalition Diomaye Faye ci campagne électorale bi nag yéenekaay bi dellu si ci gis-gisu expert bi di maître Amath Thiam di consultant en droit pénal muy xamle ni nag bu ñu ko tegee ci yoon rek Bassirou Diomaye Faye dafa war a battre campagne ni ko yeneen candidat yi defee Jibril Ñing nag bu GRADEC di expert électoral moom it di joxe gis-gisam ci biir yëglekaay addu ci leneen mu di solo yëglekaay addu jëmale nag ci sapeur pompier yi nga xam ne rek jamono ji gën nañoo yokk seen doole yéenekaay bi ne jamono ji nag jébbal nañu leen lu ëpp juróomi téeméeri woto ak i engin yoo xam ne rek boo ko xaymaa ci suñu koppar dugal nañ ci juróom-ñeent fukki milliards ak benn jeexale yëglekaay yi ca Touba benn xale bu góor la ñu daal di bett nag mu yor paaka ci loxoom daal di tër ab gune nag doon ko bëgg rendi waaye nag yëf yi mujj la antu ndax ñu doon jaar ca yoon wa nag ñoo ko mujjee gis bu ñu sukkandikoo nag ci ay mbokkam moom waa ji nag dafa am ay jafe-jafe yoo xam ne rek saay bu ko dikkalee daf koy xirtal ci mbir yu ni mel jamono ji nag moom defkatu ñaawteef bi ak gone gi nga xam ne rek moom la bëggoon a faat bakkanam ñoom ñëpp nag ña nga ca l'hôpital bu mat la bul faw zay ni foofee ca Touba